asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ñuy topp ci MK TV muqaddamatul xidma TV fii ci biir jumaay Tuubaa ji déet suwaat nañu ak yéen ci seen jataay bi ñu tuddee mboorum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jataay yi nga xam ne yëpp dañ ko jagleel yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam tey ñu nekk ci fukkeel bi jataay ak juróom jataay ba la ñu génn di jataay fukkeel ba ak ñeent ñu ngi ci doon waxtaane lu jëm ci daje gi yonent bi doon dajeek lenn ci waa Yasrib maanaam Madinatu Munawara boobu dëggutoon Madinatu Munawara Yasrib lañ ko doon wax ci ñaari giir yooyu ñu woowee Aws ak Xasraj mu doon ñaari ñaari daje yoo xam ne yu mag la bii dañoo daje ca daje bu njëkk ba lim bu néew boo xam ne jaayante nañu moom gëm ko delluwaat seen dëkk ca Yasrib ba ñu demee ñu dikk ko ne bu ñu demee danañ yaatal lii nga ñu wax ca suñ mbokk yi ñoom it ñu defee ko noonu ba ba ñuy ñëwaat jaare ñaareelu jataay ba jaayante ga bari woon lool ba ëpp juróom-ñaar fukki nit ak lu teg yoo xam ne génnul ñaari giir yooyu nga xam ne ñooy gën a mag ca Madinatul Munawwara bu ngeen fàttali ci jataay bi ñu génn leeral nañ euh, sart yi nga xam ne ak jaayante ga ca lan la teg woon waxoon nañu ne day mel ne kon am na luy bëgg a xeeñ luy bëgg xew te loolu mooy gàddaay goo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak i saxaabaam danañ ko def jóge màkkatal mukarrama dem ca dëkk boobu di madinatu munawwara waaye nag amagul lu officiel loo xam ne yonent bi wax na ko ci gàddaay googu waaye teewut saxaaba yi ñoom ñu ngi ko doon sàkku rek di ko laaj ndigal euh, lenn ci ñoom ngir dem yasrib comme nañ demewoon ci xabasa dem fa ñaari yoon waxoon nañu ne waa Quraysi bi njëgee mu yéefar yi màkk yi bi njëgee ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na jokkoo ak waa Madinatu tàmbali na ñoo ay effort nag di gëstu ndax loolu lu wér la waaye it amuñu tontu bu officiel boo xam ne dafa saxal wala dafa weddi waaye daal ñi ngi ruumandaat ñoom am nañ ay ruumandaat ay ay xibaari ruumandaat yoo xam ne nee nañ jokkoo gi am na ginnaaw jokkoo googu nag ñu koy tuddee alxaqabatul ula ak saaniya la mbugal gi gën a tar nag ci jullit yi gën a metti lool sax bi nga xamee ne suñ borom wax yu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam jox ko ndigal nag mu jox saxaaba yi ndigal ñu gàddaay te moom it am na ndigalul gàddaay waaye bis bi waxtu wa jotagu ci moom bu dee moom la moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, ci la jox ndigal saxaaba yi waaye nag yéefari Makka yi dañoo tegoon seen bakkan ci ne moom kenn du fi jóge dem Madinatu Munawwara li tax mooy dem nañ ba xam ne bu ñu demee ma a Munawwara euh, dana doon ak gàllankoor gu rëy ci lu jëm seen wàllu commerce ak seen économie maanaam seen seen seen seen seen seen wàllu alal ak seen wàllu jaayante ak jëndante ndax Yasrib ni mu placé woon ci wàllu wàllu wàllu fi mu bindoo nga xam ne kenn mënut a dem saam ca jaaroo Yasrib ca commerce bi nga xam ne moo gënoon a rëy ci jokkalante ci wàllu commerce mu ngi nekkoon ci diggante Màkka ak Cham loolu bokkoon na ci li nga xam ne taxoon nañu bañ a dem bokkoon na ci li taxoon ñu bañ a dem it mooy woote gi muy woote buñ ko buñ ko bàyyee ba mu génn ba feneen dana dem ba am doole ci dana ñëwaat maanaam daal jàpp nañ ne daal bu demee seenu seenu koom dana nërmeel dana nërmeelu jàpp nañ ne it bu demee moom yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam doole ji dana gën a bari yu baree bari daal ñu teg ko te noonu ñu ko waxee. noonu la demee ca kanam te buñ ci egsee na gën a leer ci loolu nag ki lañ jël ay pexe nag di tere képp ku ku nekk ci màkk rek ak koo mën a doon maanaam ñoom joxuñu la ndigal wala duñ la bàyyi nga génn màkk di dem fenn loolu moom xalaatuñ ko ñu waxtaan ci ba dëppoo ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa nag jox na ndigal euh, saxaaba yi ñu gàddaay kon day mel ne li ñu tuddee alhahdul makki maanaam diir bi mu def màkkatal mukarrama ci woote bi ci liggéey bi ma ngay bëgg jeex demaat ci beneen étape nag bala ñuy dem ci gàddaay gi nag danañ am ak leeral tuuti rek ci alhahdul makki maanaam diir bi mu def màkkatal mukarrama nga xam ne mooy diir bi gën a yàgg ci diir yi mu def ci ca madinatu munawara mooy diir bi gën a néewit lu dugg ci lislaam ndax bu mu demee a munawara ci la mbooloo mi ak limub lislaam ak doole jeeg yëpp gën a tasaaroo euh, diir bii mu nekk màkkatal mukarrama mënees na ko tënk résumé ko rek bala ñuy dem ca gàddaay ga diir la boo xam ne nii ñaari étape moo ci gën a fës lu ñu tuddee étape bu ad-da'wa as-sirriya muy woote goo xam ne nii da ko doon yalu di woote mu toll ci ñetti at ak li ñu tuddee ad-da'wa al-jahriya bi nga xamee ne yaatal na déclaration bi ca loolu suñ bind yële ñu génn bu ci nekk rek taxaw nañ ci waxtaan ci ba nga xamee ne dem na nag ba fësal woote gi nag loolu day mel ne lu fës da ci euh, addaxwa wala al ahdul makki bokk na ci li ci gën a fës moom muy étape bu màkkatal mukarrama mooy ñaari gàddaay yi nga xam ne jot nañ fi am te yëpp waxtaane nañ ko mooy gàddaay gi njëkk ci lislaam mooy gàddaay gañ gàddaay yoon jóge màkkatal mukarrama dem xabasa muy Éthiopie def nañ ko ñaari yoon bu ci nekk taxaw nañ ci wax tudd nañ turi saxaaba yi nga xam ne ñoo gënoon a fës ca na ci li gën a fës ci diirub lim def màkkatal mukarrama li ñu tudde almuqataa al amma wala almuqataa al kubra mooy maanaam euh, doggum gu gu rëy gi nga xam ne waa Xuraysi kompaloo woon nañ ci dagg seen relation ak seen lépp loo xam ne nii nañ ko def ci jokkaloo ci sëy ci waxtaan ci jaay génnante ci dimbalante ci lépp lu mën a doon ñu dog ko ak yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ak euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo ko gëmoon loolu it defoon nañ ci bind ba waxtaan ci ca bind yële weesu bokk na ci li ci gën a fees mooy atum njàqare mi nga xam ne moom it defaroon nañ ko jotaay waxtaan ci mooy at mi nga xam ne ñaar ñi gënoon a mag gënoon a rëy ci ñi ko doon jàppale di ko dimbali taxaw woon ko bu baax a baax a baax yërëmoon ko muy sayyidatuna Xadija ak euh, Abu Talib di waajur Sidna Ali ñoom ñëpp kenn ku ci nekk def nañ ci waxtaan akub ab jotaay loolu it ca màkk la gënoon a fese bokk na ci li gënoon a fes ci woote màkka bi muy euh, miracle bu rëy boobu ñu woowee al isra wal mi'raj muy rañaan gim rañaanoon nga xam ne moom it def nañ ci bind taxaw ci wax ci loolu it màkk la xewoon waxtaan nañ ci bu baax a baax a baax bokk na ci li xewoon ca jamonoy màkk ji muy liñ wax mujj wax ci bind bi ñu weesu mooy ñëw gi nga xam ne waa aw ak xasraj di bàyyi ko yasrib di ñu màkkatal mukarrama di gisee ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu proposé leen wan leen lislaam mu doy leen bañ gëm ba jaayante jaayante gu njëkk ba di alaqabatul ula jaayante ak ñaareel gi ca at ma ca topp di alaqabatu saaniya ñu dikk ko ay dikk ca lañ ko wax lépp du di dëggu di loo xam ne nii lu wér la lii mooy li nga xam ne ci résumé mooy li gënoon a fës ci diirub lim nekk màkkatal mukarrama ca loolu bi ñu ko doon xool toll na ci euh, fukki at ak ñett waaw kon bu ñu ñëwee yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu amee ñeent fukki at lañ ko yónni mu toog màkka woote fa diir bu yàgg yàgg yàgg lu tolloo fukki at ak ñett kon dañ naan jamono ji muy joxe ndigal ci gàddaay gi wala bi muy gàddaay moom amoon na juróom fukki at ak ñett euh, loolu day mat a jàpp bu baax a baax a baax ba nga xam ne suñu dikkee ci Euh, état bu madinatu munawara danañ ko mën a taxaw euh, saxaaba it incha allahu taala euh, bu waxtaan wi demee ba nga xam ne waxtaan nañ dund gi yëpp incha allahu taala dañuy dellusi ci ñoom nag wutal leen ay jataay xulafaa yi saxaaba yi gën a fës ummahatul muminina yi ñoo ñëpp kenn ku ci nekk bokk na ci liñ fas yéene incha allahu taala ñu wutal koy jataay yoo xam ne dañ ciy wax ci ñoom kon bi ndigal li waddee mooy ndigalul gàddaay jëm ca dëkk boobu ñuy wax yasrib xam naa yasrib la ñuy wax rek ba keroog ñuy agsi ci bi ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tuddee almadinatul munawwara la ko sabab ak nam ko ko tuddee ak anam bam doon loolu lépp incha allahu taala ci bind yi ñu jëm danañ ko ci wax waaye ki njëkk a génn nag mooy abu salama ak soxnaam ummu salama ak njabootam abu salama mooy ci ñi njëkk a dugg ci lislaam la saan bokkoon ci ñi nga xam ne son noon nañ lool ci màkkatal mukarama sonnoon nañ leen lool bokkoon ci ñi nga xam ne it jotoon nañu coono yu métti yeeg métti yi taxoon na sax bañ génn gàddaay demoon ci xabasa am na sax ci borom xam-xam yi boo demee ci téere bi ñu naan albidayatu wa nihaaya bu ibnu kasir nee na abu salama teel naa génn maanaam bañ defee lu jiitu sax al aqabatu saani yi moom fekk na mu dem waaye ci taxaw rek daal mooy saxaaba bi njëkk a génn bàyyi ko màkkatal mukarrama jëm yasrib wala ca jëm madinatu munawara euh, amoon na ci gàllankoor nag yu méttee métti moom Abu Salama ndax bi mu bëggee génn euh, dañ koo kar maanaam mbokki soxnaam ñoo kar soxna sa ne ko suñ suñ doom ji ñu la mayoon du génn mbokki Abu Salama ci boppam ne ko sa doom ji du génn waaw duñ la bàyyi kat ngay tasaare suñ suñ suñ suñ suñ suñ suñ askan wi waaw mbokki soxna sa nangu soxna sa mbokki Abu Salama nangu doom ja nee nañ mu toog fa di jooy jooy bu diir bu yàgg sax boo xam ne daanaka lekkatut naanatut nekk ci métit ba nga xam ne dañoo mujj sax delloo ko njabootam googu ñu gàddaay waaye ki njëkk dem daal mooy Abu Salama waaye it bu ñuy wax gàddaay gi faw ñu taxaw ci saxaaba bu tedd boobu ñuy wax bu bu Suhaybu Ruumi moom it di saxaaba boo xam ne euh, doxandéem la woon ca màkkatal mukarrama maanaam dëkkul màkka du nitu màkka daal euh, am na ñu naan xeraq la juddoo waaye ala kulli xaal moom moom it bi mu bëggee gàddaay euh, yéefari dañoo ñëw ñëw ci moom nag ne ko yow moom ñëpp war a dem ba mu des yow yow fii nga ñëw nekk fi doxandéem yuroo dara amoo dara ñu taxawu la ba nga liggéey ba am alal tekki bëgg a jël sa alal ak sa njaboot jëlaat ko dem ak moom nee na soxe bu ruum yi waa di wax nit ñi ne leen waaye yéen bu ma jëloon alal jii ngeen di tudd ko xool lépp bàyyee leen ko ndax dangeen ngeen ma mën a bàyyi ma gàddaay ñu ne ko waaw mu ne bàyyee naa leen alal ji ak mboolem lu ma am ci koomu àdduna jël leen mi ngoog nee nañ bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam yégee loolu rek dana rabiha soxaybu ah soxaybu day soxaybu day raw na moom waaw ah, kooku day bénéfice nu maanaam gañe na soxaybu day gañe na gañe na mooy gañe na gañe na ngëm yàlla gañe na pay goo xam ne moo ëpp lim def lim def lu rëy la waaye dana ci gañe loo xam ne nii pay yàlla goo xam ne moo ëpp lii fuuf loolu it amoon na ca Suhaybu Ruumi kasaalika it bu ñu wax ci gàddaay gi danañ wax ci gàddaay Seydina Omar ndax bi nga xamee ne ndigal li ñëw na rek ci lañ commencé nag di génn ñi di génn xaaju guddi ñi di génn bëccëg ñi di def ay ñaar ak ñett di ànd ñi di wéet yëf yi commencé tasaaroo bu baax a baax a baax a baax ñuy gàddaay euh, ci loolu euh, ci la Seydina Omar nag ñëw wër kaaba gi juróom-ñaari yoon dem ci maqam Ibrahim julli euh, dem ci penc ma nag dafa dàkk nag waxtu yi nga xam ne ñëpp fay nekk mu ñëw woo leen ñëpp ne ko jàkk di ko xool mu ne du yéen yéen ay tere gàddaay waaw waaw ñun day ñoo koy tere mu ne man day maa ngi gàddaay maag sama njaboot képp koo xam ne nii namm nga sa soxna tenji la wala say doom nekk jirim nang ma kar ci xur wii nii ci yoon sàngam ak sàngam fa lay jaar te ngi gàddaay bisub keroog wax nañ ne mbooloo bu bari ci askan wi bokk ñoo nekkoon ci ginnaawam mu ànd ak ñoom gàddaay ñoom ñëpp ñu sëgg kenn ñëmuwut a siggi kenn tontuwut kenn waxut Sidna Omar it daal di gàddaay ci loolu ci loolu nag ci la nag ci lañ woote nag benn réunion bu mag a maga a mag a mag ca daaru daaru daaru nadwa nag benn place la boo xam ne benn kër goo xam ne ñaare euh, bu ñu fa dajee rek wala ñu woote fa rek lu rëy rëy dafa am wax nañu sax euh, keroog daje boobu ñu doon daje ngir waxtaane mbirum yonent bi amul benn xabila ci xabaay li nekk màkk ak li ko wër lu dul ne waxuma sa ndaw sax waaye kilifa xabila ga teew na ca ndaje moom ñu woote ndaje moo xam ne ni aboo jahlin ak mbooleem xabaayil ñëpp teew nañ ana lu luñ doon jàngat muy saxaaba yi muy muhammad mii ñi ko gëm ñi ci ëpp génn nañ moom nag génnagut waaye boo ñu toog waxtaan ci moom wala muy génn bu génnee mooy li ma waxoon ci tàmbali bi rek Yasrib ni mu bindoo ci wàllu géographie ak ñoom seen wàllu économique ni mu demee diggante saam ak màkka niñ koy doxee ak ci aju yëpp nga xam ne junj naa ko bi may tàmbali ñu waxtaan ci loolu keroog ndaje moomu wax nañ ne iblis allahin iblis arrajim teewe na ndaje moom ne dafa soppali ko benn góor goo xam ne nii dafa xaw a nuróog waa najd Euh, bi mu ñëwee taxaw ci bunt bi ñu ne ko yow looy def foofu damaa bëggoon ñëw teewee ndaje mi ñu ne ko acca bismillah ñëwal jàll ñëw toog keroog ndaje moom Iblis teewee na ndaje moom ndaje ma nag lañ fa waxtaane mooy lañ fa njëkk a waxtaane mooy euh, am koo xam ne daa joxe xalaat ni daal dañ naan coppeet Mouhamad jël ko sànni ko ci beneen réew fu soree soree sore sori buñ defee loolu xañ na danañ noppalu wax nañ ne Iblis ci boppam moo wax ni bu ngeen defee loolu du ngeen ci génn ndax yàgg-yàgg dana dellusiwaat fii ni mu baree pexe ak ni mu yewwoo ak ni mu amee doole bu ngeen defee loolu yàgg-yàgg dana fi dellusiwaat te loolu la ñu ne échec loolu moom ëpp naa wax nee na am koo xam ne ca mbooloo ma tee ñu koo tëj kon dañ ko jël tëj ko ci kaso tëj ko ci kaso boo xam ne kenn du xam fu mu nekk ñu tëj ko ba dee ñëw wala faatu ñëw ci kawam kenn du xam nu mu demee Iblis taxawaat wax ne même tëj gi sax ànduma ci bu ngeen ko tëjee du ngeen ci génn ci loolu ci la am ko waxee nag mais tee ñu koo rey ñu ne ah rey ko day moom ku ko rey coow dana la topp ndax boroomu mbokk la te it ku am ku am ku am nasab la maanaam ku am askan wu wuñ xam la ku ami nit la it wax dëgg yàlla noonoo nañ ko lool nag waaye jëmmi rey ko moom ku ci dugg da am problème bi ndax dana jur ak noonoo goo xam day day day day day am ci diggante xabaayil ca day sax ba faw waaw ay woowu daal moom ëpp naa euh, ñu ne nag niñ koy rey mooy dañuy fexe ba dañuy fexe ba mboolem ñi teew ci jataay bi mboolem xabaar yi mag yi fi nekk yëpp kenn ku ci nekk yabal benn xale bu góor mu ñëw ñu jëlandoo ñu dóorandoo bu xabaar il yëpp dóorandoo bu ñuy porte plainte wala bu ñuy ŋàññi wala bu ñuy attaqué kan la ñuy ci la Iblis nag daal di wax ne ah kay xalaat bi rafet na ànd na ci lii nañ toogoon di ko waxtaane ak xalaat yi fa génn yëpp suñu borom jël xalaat yooyu ak waxtaan wi yëpp ñëw nettali ko yonent bi sallallahu alayhi wa ko wa is yamkuru bika suratul anfal wa is yamkuru bika lasina kafaru li yusbituuka aw yaqtuluuka aw yuxrijuuka wa yamkuruuna wa yamkurullah wallahu xayrul maakirin ne ko day allasina kafaru ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla ñi ngi daje di waxtaan daje ma nag dara waralu ko lu dul nee nañ danañ la tëj ñii ne la rey ñii ne la génne waaye na nga dalal sam xel ña ngay defi pexe waaye yàlla it mi ngi def ay pexeem ci loolu ci lañ dëppoo nag ci ne xabila bu ne day yebal benn xale bu góor ñu jox ko jaasi ñu demandoo ca këram ga dóorandoo ko benn yoon loolu mooy lañ dëppoo ca réunion ba nag fas yéene koo jëfe euh, xam naa ci jataay bi ñu jëm nag ci la ñuy nettalee euh, seen pexe yooyu nan lañ ko jëfe ak euh, yonent bi sallallahu alayhi la génne kon jullit yëpp jot nañoo génn ba mu des yonent bi sallallahu alayhi wasallam Seydina Aboubacrin Seydina Ali ñoom ñoo des màkk ak ñi nga xam ne dañoo néew doole ba amuñu kàttanu génn wala am na lu leen jot ba mënuñoo génn ñoom ñoo fa des waaye li ëpp ci saxaaba yi ñoom jot nañoo génn ba gàddaay jëm yasrib kon day mel ne yonent bi moo ne ci waajtaay ñee ne ci ay waajtaay ay pexe waaye yàlla yi di pexe te yàlla ne na ko na nga dalal sama xel ci xam ne pexe yàlla mooy féete kaw lépp wallahu xayrul maakirin kon mbokk yi day mel ne waxtu yi mi ngi sori fii la ñuy yemandi nag ci buntu waajtaayu gàddaay gi xam naa bu ñëwee nag ci la ñuy gën a xuusaat bu baax baax a baax ni yonent bi génne ak pexe yi noonu doon def ak ni mu agsee euh, madinatul munawwara incha allahu taala noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp euh, di ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiq asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wal imaamu imaamul mursaliina ma'an wal anbiyaa'i yaqiihim fil jawwal umama